asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV tey nag ñu ngi toog ak Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye comme ni ñu koy wooye ancien roi des arènes fas yéene seeq mu waxtaan ndax nag benn combat la bëre ren ci saison bi mook Modou Lo yàlla mooy ko ci ndam ñu gis ne boobu ba tey wàccaatu ci terrain bi te lamb ci saison baa ngi bëgg a jeex taala tey nag Babacar ñëw seet si ko fii ci golf këram euh, Balla maa ngi lay ziar. maa ngi lay nuyu Babacar. Ah, di la ziar di la wax euh, baal ñu àq hmm. di la baal àq aussi tamit hmm. di santaat yàlla baax rek di julli seen bi sallallahu alayhi wa hmm. di sant sama ñaari waajur di sant suma sëriñ sëriñ Basiru Baara di ñaan yàlla yàlla na yàlla yokki leeram te taaf ñu ci barkeem ak di ñaan sama papa moom gudd fan ak wér ak képp koom papa ak koom yaay it yàlla na ko fi yàlla bàyyi moom gudd fan wér rawatina sumay encadrement ak sumay esaf ko ci mel ni Aziz Ndiaye suma papa Baye Ndiaye Baye Diop Talla Meng Modou Simon Andaw Ndiaye Papis donc ak Talla Meng ak rawatina nag suma turandoo Balla Gaye suma papa Balla ak rawatina waa école de lutte Balla di gërëm esaf yëpp di gërëm encadrement bi ak golf bi nga xamante ne maa ngi fay yeewoo rawatina suma mbokk Casamance yëpp di nuyu ñëpp di jégalu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaw bisimilah. Balla ren nga bëre ak Modou ñëw yàlla may la ci ndam ñu doon xaar Balla Gaye amaat combat ci saison bi nga toog mu mel ni ki euh, lu xew maanaam Balla moo nangu te jël combat wala promoteur yi ñoo ko démarché wul. waaw xam nga yàlla dogal na bëri nañu ak euh, Modou yàlla may nañ ci ndam. ñun toujours ñoo ngi suñu entraînement parce que xam nañ ne marchandise bi ñu yor tamit peut-être du marchandise bu bu bu xaw a yemamaay quoi moo tax xëy na peut-être nag boo amee combat amaatoo combat da sant yàlla te xam ne prochaine fois tamit prochaine saison muy fi di xaar waaw. waxuloo début saison nga bëri parce que janvier nga bëri woon saison war a tëj mois de juillet loolu xam nga li ci dox bari na ay mois yu bari la est-ce que bëree ñëw bëri woon ñaari yoon warul woon ci yow. waaw moo moo doon suma objectif parce que li ma doon entraîné ak li ma bëggoon a def aussi yàlla yàlla peut-être yàlla moo ko dogal noonu mais woon ñaari combat pare woon pour am ko ci saison bi yàlla moo doon ne benn combat am et moo koy sant yàlla mais bëggoon naa am na ko teg yàlla kon ni nga ko bëggee wala keneen kenn ni nga ko bëggee tamit noonu laa amoon yéene bi mais yàlla moo antuwul yàlla attanul wala yow yaa xeeb adversaire yi parce que su ma juumul dégg naa fi ñu wax sa combat ak Bombardier sa combat ak Bombardier dañ ma a tax suma combat tamit doxuñu seen combat dox sama combat ren vraiment ma wax dëgg rek yàlla su ma la déggee kon ñooñu ñëpp kenn doxuñu seen sa ak ñooñu du Gris du Tapha Tine du franchement bu dee Eumeu Sène la avant muy am combat dox nañ seen combat wala. non non non amul. kon déwén mais ñooñ bu ñu doxee seen combat di nga bëri ak ñoom parce que déwén sama jumul ñoo fay des pour yow. waaw xam nga man man man mbër laa rek employé promoteur yi laa mooy li ma koy faral di wax rek comme si que man employé la dañ may bëriloo mais sama encadrement bu d'accord rek man pare naa parce que am naa staff am naa encadrement man bëre rek mooy suma métier bañuma kenn te bañuma dara. mais am na ñu xam ne tamit est-ce da ngay xaar combat Eumeu Sène ak Modou loo tas. non man xaaruma kenn parce que man tamit wax dëgg yàlla amuma jot tamit di xaar kenn mais ku ku ma yàlla boole rek incha allah pare naa pour bëri mais man xaaruma kenn. waaw xëy na yàlla mu dogal tamit bëreeguma rek wala mu am combat mais comme ma jox baax na. mais adversaire yi ma tudd kuñ ci dox daal pare nga pour bëre ak moom. waaw staff bu ñu paree encadrement bi pare rek man pare naa awma ci dara awma ci xaaj seen. léegi su ma ñëwee euh, parce que fi may ñëw tamit bi nga bëree ba pare dégg nañu soow yi ci biir géejawaay yi ñaapal bàyyil après ñu déggaat dernière fois wala dernier moment ne que waxtaan ngeen yéen mbër yi nekk géejawaay yëpp bal day confirmer loolu wala. non du loolu xam nga àdduna moom. Euh, dañ ne lii la force. mais xam nga tey ku nekk am na écurie yi am na école de lutte mais teewul ñun ñëpp jàmm lañu lañu lañu lañu sekk euh, ku ci am bis ñu jàppale la. mais jàppale wu si tamit dee ko dégg xam nga boo gisee mën a dee ko dégg soit que da am combat ñu jàppale la ci contact jàppale la xëy na peut être tam kii bu mu ne ñaan moo wax ne sama waa ji dimbali ko te yàlla tax mu am ndam di am yéene bi di am objectif yi te kenn ku nekk rek ñaan sa bopp doy na la misaal man école de lutte bi ma nekk doy na ma te et puis maa ngi fa nekk ak su may su may mbokku mbër waaw kon. ñëpp benn lañu. waaye man actuellement moom li ma gën a intéressant mooy sama école de Balla Gaye ah ñu jëm ci kanam ak écrit Guédiawaye yëpp ñu nekk ci kanam mais teewul ñëpp ay jàmm lañ la de la passé passé na di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam. la dëgg di ko ñaanal yàlla may ko ndam mu mel ni ki muy bëril muy Boy ñaa yàgg naa dugg Guédiawaye di fa ay ndam ba tey nit ñi ne. mag ña ñoo fa des mu jëkki ci Lac de Guiers numéro 2 Lac de Guiers ak Boy Niang fi mu nekk nii Balla boobu combat nu mu ko gisee. waaw li ma ko gisee mooy kon ni nga ko gisee parce que làmb la boo xam ne combat bu neex la gox gox di bëre teewul ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi parce que làmb boo xam ne kon ni nga ko faral di waxee rek xam nga nit ñi dañoo sport dafa doy mais ça dépend ci ni nga koy calculer ak ni nga koy gisee ci def boo xamante ne war na ko calculer. Lac de xalaatul ne Boy ñaar dafa dugg géejawaay di daan di daan di daan non yàlla moo dogal mu war a daan tey daan mais li nga xamante ne am na solo ñoom ñaar war nañoo bëri mu am koo xamante ne nag champion la Lac de nekk mbër bu mag nekkul mbër bu ndaw bëri champion bu ne donc li mu war a def ak SFM ak euh, encadrement ñun dañuy pare rek pour accompagner ko jàppale ko ci SF bi ak encadrer ko rek yàlla may ko ndam. yéen ngi liggéey ak moom ci combat bi. waaw bien sûr ñu ngi liggéey. comme ban genre liggéey contact wala wala euh, saal wala fan. waaw loolu nag du lu ñuy wax walla du lu ñuy génne suñu kàddu di ko wax mais l'essentiel daal toog nañu waxtaan nañu ñu war koo jàppale mu war a am ndam ci kàttanu yàlla incha allah donc moo tax ñu ñu ngi ciy liggéey ba jour ba di ngeen xam ne la de guerre boobu woon ak léegi du benn. Hmm. parce que bu ñu nee jàppale waxtaan bu pare jàppale suñ ko waxee ci Balla Gaye da dañuy xalaat contact xalaat musculation xalaat din xalaat yu mel noonu moo tax ñu ne ci ci maanaam ci yan quoi xam nga loolu. waaw waaw xam nga nag actuellement dinañu li nga xalaat loolu muy mbër. mbër boo ko jàppaloo ci contact. jàppalewoo ko ci musculation. wala jàppale woo ko ci diin jàppale woo ko ci dara parce que luñ la mën a ñaanal ak luñ la mën a defal après contact bi moom ngay defi. kon loolu nga wax nii moom lañ koy jàppale te ñoo ngi ci nag te incha allah bu ñu waree jàmm di nga xam ne ñëpp xam ne ñoo ngi ci te finition yi mooy des ak bu soobee yàlla ñu accompagner ko te la diggéen mu ngi ci yooyu yëpp macha allah. yow miy gisanteek moom wala yow miy jàppanteeg moom lan fi mu ne loo yëg ci moom. la dëggeen musul néew doole koo xamante ne combat ñàkk combat day entraîné kooku kay combat boobu day gën a yokk ñeex rek waaw loolu la. mais xale bi ñuy bëri ñu bëri dañ ne. xale la ci âge mais bëri mag lay bëri parce que mën na bëri mën na xeex te mën na calculer làmb. waaw waaw waaw loolu am na mën na wéree mën na xeex macha allah mën na calculer làmb mais aussi tamit la de du mbër boo xamante ne bu dee calcul rek ci moom la fekk baax bu dee lu mu gisul lu ko leerul du ko def loolu moom ñëpp xam nañ ko ci la de mais xam naa ne daal combat la boo xamante ne ñoom ñaar dina bëri calcul. mais la de Guiers liggéey na loo xamante ne aussi bu jàppee Boy Niang war na ko mën a daan facilement. Mm-hmm. am na ne combat bi day yéex parce que ñaari cal dañ ñoom ñaar ñëpp ay dañuy calculer yow gis nga ne combat bi war na mën a dem temps bu yàgg war na mën a gaaw. waaw amateur yi xala xaaruñu loolu kon mu toog benn cinq minutes wala benn trois minutes xeexoo bërewoo loolu moom franchement amateur yi xaaruñu ko loolu ci làmb li ñuy xaar mooy ñaari mbër yoo xamante ne ñëpp xam nañ ay calcul lañ. kenn ku nekk wax na sa moroom bu bis waa nag ah nañu ñëw wane jàmbaar wane fulla wala fayda que le meilleur gagne mais di ñaan Lac de Guiers yàlla mooy ko ndam bu wér a wér a wér a ah, su ma ñëwee combat bi tamit dañ ci gis ñu ne géejewaay cent pour cent bi da cee feeñ Lac de Guiers géejewaay la dëkk Baye Ndiaye géejewaay loolu nit ñoo koy wax drapeau bi ñu tuddee drapeau bi Alioune Sall mooy meeru géejewaay ñu ne est-ce que gars yi nekkuñu waa géejewaay di gasal kàmb Boy Niang pour bëgg ko freiner. non <coughs> gars yi bu ñu xalaat loolu man sax maa ngi koy doog a dégg waaye boo gisee Moro loolu hmm, pour nga wax loolu noonu dafay doon lu ma jaaxal parce que damay dégg léeg-léeg ñi ñi di ko wax ak nangam promoteur bi bàyyi ñëpp xam nañ yàgg na tëgg làmb boo ñaaw wax na la ci biir wax nekkul ne géejawaay rek laay bëreel wara mbëru géejawaay laay bëreel non yàlla moo dogal mbëri nekk biir géejawaay champion yu bëri fi macha allah mu war a bëri ñoom daan leen bàyyi yàgg tëgg làmb moom mu ne làmb ji dafa ñor kon làmb ju ñor la bàyyi tëgg mais xoolul ne ay mbëru géejawaay non non non non géejawaay na xam naa ñu weex donc lañ. <laughs> lu tax waa géejawaay weex donc. ah mais na xëy na xëy na mbër yi fi nekk la macha allah xëy na mbër yi fi nekk la wala tamit yàlla defal ñu ñu am ay mag yu baax ak ay kilifa yu baax xëy na moo tax ñu weex donc waaye pour man làmb loolu amu ci. est-ce que li amoon sa combat ak Balla moom la moom la yi bañ ma maat est-ce que du moo tax ñi waxee noonu. sa combat ak Modou Lo laa a wax boobu. non man man dañ ma encadré encadré bu baax. wax dëgg yàlla. làmb nekkul loo xamante ne dangay tëgg promoteur pour soxlu ko. Gaston moo tëggoon làmb ji. loolu lu muy liggéeyante ak Aziz ñoom ñaar la concerné. mais Gaston moo jox avance. suma mag suma papa récupéré avance bi daal ma ko jox man loolu laa ci ak liggéey. loolu kese mais le reste nag Babacar. gis nga dañ naan supporter bi neex na. amateur bi neex na. yàgg yàgg yàgg yàgg loolu liggéeyul. doo fekk ci biir géew bi. su ma la déggee daal ak ku la mën a jàppale itam bu ñëwee ci géew doole doo ci génn. leer laa la a wax. loolu li leen nit luñ la yuuxu luñ la encadré luñ la jàppale loolu liggéeyul ci géew bi doo ko fekk. làmb amul farfar farfarloo nit ñi ñooy wax nii rek ku nekk am nga droit supporter ku la neex wax bàyyi ñëpp xam ne ñu melu noonu Aziz ñëpp xam ne ñu melu noonu mais ñoom bu ñu amee seen nit ay jàmbaar jàmbaari fàqatal lañu dañ cay jàpp biir biti ba yàlla may leen ndam mm-hmm. waaw mais bàyyi képp koo xam ne moom Balla Gaye la moo ko concerné Baye Ndiaye mu ngi ko xamee ba léegi ban mbër nga mos a gisee kuy ànd ak lu Balla Gaye de daa mel li ñu seetlu yow laa gis mu indi lam Aziz boo ko xamee ba léegi ban mbër boo xamante lay jàppale ci mi ku jàppale Balla Gaye de. Aziz moom newoon na Fass dégg na. bu nekku Fass Moustapha Gueye xaritam la loolu lu yàgg la man bëri naa lu garaaw laa lay wax <laughs> Aziz ànd ak Moustapha Gueye bàyyi ànd ak man ak ñoom Khalilou. mooy bi ngay daan Moustapha Gueye. nga jaan na Gueye xam ne kon sport moo mel noonu mais nag après dafa mujj ñëpp nag. mooy combat bi nit ñi doon wax ne lii est-ce que du combi. waaw léegi nag après dafa mujj ñëw biir këram. uuf njabootam. ok loolu la bokkuñu ñëpp uuf waaw. mais Boy Niang am na tamit ñuy wax ne tey bëtam yëpp ci Balla Gaye de la ko teg est-ce que Balla mu ngi bàyyi loolu xel. Ah, waaw xam nga àdduna nag ñëpp dañu ni Balla Gaye numéro bëgg a mel ni Balla Gaye du moom rek moo bëtëm ci man la ko teg bëri na ay mbëri mbëri mbër mais loolu sant yàlla la mais l'essentiel li ci am solo rek mooy na nga liggéey rek làmb moom nga bëgg a mel ni Balla Gaye nga bëgg a mel ni keneen ak keneen ak keneen ak keneen. yëpp liggéey moo ko joxe. waa man dama bëggoon Tyson ba buggoon mel ni Tyson tey maa ngi nii sant yàlla mel naa ni Tyson wala ma raw Tyson waaw. est-ce que moom liggéey na lu tax gis nga ne liggéey na moom Boy Niang. waa mbër la mu ngi def ay preuve am franchement mu ngi def ay preuve te preuve yi ñëpp teg nañ ci seen bët ku def preuve nag kon bon xam nañ ñu mu ngi liggéey. Euh, tey ñu kuy daan parce que il a yàlla xam mais bu yàlla defoon tey moom mu daan donte Lac de Guiers mën na koo daan mais bu daanoon Lac de Guiers tey est pare na pour bëreeg moom. yow li nga la. non dama non exemple man naa daan Boy Niang mën naa daan mais dama ne exemple sa xalaat. waaw waaw. te bi sa xalaat tamit dañ la koy nangul. xalaatu nit ñi sax ñoo koy jëkk di ñoo koy posé la koy indil moo tax. koy nangul. waaye incha allah man daal damaa pare pour bëre. comme loolu ñëwagul. nañu bàyyi ba mu ñore wala ba bu ñëwee itam daal doo ah comme ñëwagul daal nañ bàyyi ba mu ñëw. <laughs> maanaam lañ laa taayee. waaw gis nga <laughs> kon ñëwagul daal dañu bàyyi ba mu agsi. ma ne kon ñëwagul dañu bàyyi ba mu agsi. ñu am na solo. léegi loolu leer na maanaam bu de wa nangu nga ne mu ngi def ay preuve am mais dañu gis beneen affaire tamit ci biir parce que fan yi dañu gis sa rakk Ama Baldé mu génn ne booy Niang day duma Lac de Guiers de daan ko. Mm-hmm. bu xeexit na ko duma bëri na koy daan. waaw xam nga bëgg-bëggam la sama tax la. léegi nag te ñooy moom sama nit la sama la. Ah. te moo doon ne sport dafa doy war nit a ngi ànd ak nit te léeg après duñ bokk fu ñu far. Mm. ñaar nit a ngi bokk ndey baay. mu farfee mu farfee te ñoo bokk benn ween buñ ñaaw. Mm-hmm. mais kenn ku nekk day wut pour moromam. mu ngi nii Ama Baldé mu ngi ñaanal euh, Boy Niang. man maa ngi ñaanal la de mais yéen ñaar nu ngeen di toogee ak fi mu ne ci combat bi ak du ñu toog du ñu gisee sax xam nga làmb moom yaa ma gën a xam. kaay moom fu ñu la gisee feneen fa sàmba rek mooy loolu. Ama bon Pikine la dëkk man Guédiawaye laa dëkk. am na droit pour supporter booy ñaan ñaanu ko ndam man am naa droit supporter la de yàlla may ko ndam. te du koy fësal man tamit damay fësal damay même ñaan la de guerre Hmm. mais daal kon si cadre sport ngeen koy teg daal. kese Babacar lii rek dafa garaaw gis nga ligue des champions bu ñu ci daan ay centaine de milliards la ñuy fay ah, gisoo sax ñuy xeex ak ñu pare def ko sportivement pare dem. Ah, gis naa supporter Tottenham bi ñoom lañ gañ mais ñu ngi tàcc supporteru Liverpool yi. loolu mooy sport fair nit war na mën a bëree sax ànd ak mbër bi tey génn dem ànd ak moom reer yi. maanaam ngeen bëree ba pare reer yi. ànd moom reer mu sol rafet nga sol rafet ànd moom reer yi. loolu mooy fair play fair play dañ koo war a maanaam nit ñi ñoo koy wax mais jëfewuñ ko nañ ko jëfee dèjà mu ngi njëkk ci yow yow sportif yow miy bëree soit que yow miy football tax doon fair play defet neexul da wut may wut jàppal ne coono bi nga am moom laa am mais yàlla mooy ko ci jox ma ko damay ànd ak yow bëgg la lool lu yàlla da lay gën sax yow mi sa wàllu bopp jox la loo foogul woon ci àdduna donc fair play fi muy mujj si combat be mooy que ni est ce que Lac de Guiers am na loo koy moytuloo si Boy Niang. waaw nit ku nekk nag am na loo ko war a mun a moytuloo ci mbër ma ndax nit ku nekk am na point fort. moom loo koy moytuloo. loolu dina ko wax mais actuellement du ma ko wax dara du ma la wax dara yow. te du ma wax amateur yi dara waaw. booy bi de dégg naa ay na ci loxo bi de moom xor na moom. waa xam nga Lac de Guiers nag dëgg yàlla buñ ñëwee Lac de rek dóor ngay njëkk xalaat. mën na xeex de Balla. waaw champion la mën na xeex mais la dëgër nag il est fort waaw macha allah il est loxo bi neex na lool. Ah, pied gauche ak bu ñuy bëri kan mooy ëpp faveur. ñoom ñaar ñëpp ah ñoom ñaar ñëpp parce que dañuy jegewoo quoi. parce que Lac dëgg Guiers garde normal la yaakaar naa booy Niang fausse garde. Ah, waaw loolu ku muy gën a arrangé. ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk arrangé wu la. mais dañuy làmb bu jégaloo bu fekkoon ñaari mbër bi kii mbër buy song la wala mbër boo xamante day riñaar wala jàpp kon nag mën naa la wax combat bu gaaw lay doon. ok bu ay jëlikat. waaw ay jëlikat. waaw day doon du ñu mbër yooyu song carrément. non non ñuy mbër yi song nag. Mhm. du ñuy mbër yi song mbër xaar lañ donc xam naa xeex daal moo fa xeex. waaw dinañ xeex kon mu daanu mënu ci am. waaw mën na am kay. ci bu ñu xeexee mën na am waaw. Mhm. ku ci xeexam gën a bënn non la dëggeen moo jiitu ci Boy ci làmb moo ko gën a ñor xeex ñor xeex nekkul ne da nga mën a xeex mën na mën a xeex mais ñor xeex xam na ngay xeexee am na solo. maanaam mën a doore mën a moytu. mën a dóore mën a doo bëgg bu ñu dóoree da nga bëgg a fay plus rapidement wala nga gis sa bopp ñëw def la waroo ko def. bis boobu ki ko tëgg wax nga ko léegi bàyyi njaay ku ne xam leen ca ba ngay mbir mu ndaw ba tey muy promoteur yore Alburax production tey looy wax population sénégalaise bi mais moom Baye moom loo koy wax ci bés boobu. Baye suma xarit di ko ñaanal yàlla bés boobu yàlla na réussir li mu foogul yàlla na ko gis li mu bëgg ci bés boobu yàlla na ko suñu borom defal ci barkent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne rek Pikine Géejawaay benn la ku yàlla jox ndam na nga ànd ak dal ñibbi parce que tey ñu bëri nee nañu stade bi amul sécurité kon ñu ngi bàkkee loo xam ne amul sécurité na ñëpp def yar ak teggin bu ñu xuloo ba ñu xeex ba ñu def sa morom lu ñaaw parce que stade bi stade bu bees ñun ñi sax nee nañu seize yi ñu ngi commencé damm kon nañu nañu xoolaat suñu bopp. te ay ay milliards lañ ko defaree. waaw nañu xoolaat suñu bopp bu baax a baax a baax ci sport bi di ñaan yàlla nag Lac de Guiers numéro 2 yàlla na ko yàlla may ndam. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. loolu bal waaw waaw loolu moom franchement ñu ngi koy ñaawlu ñu ngi koy ñaawlu bu baax ndax nekkul lu rafet ndax euh, ku xam Sénégal xamee ko ci jàmm xamee ko ci salaam ak yar ak teggin ba mu des loo xamante ne lu ñaaw la. waaw loolu moom vraiment neexul kenn ah ku kuy xalaat loolu bari ko def franchement ñu ngi koy ñaawlu ndax jigéen moo ñu ah, muy président bi. nitu diine bi kilifa yi ay jigéen ñu jur kon nañu bàyyi xel ci loolu nañu def lu rafet waaw te delloo seen xel yi góor ñi waaw nañu bàyyi lu bon li daal ñu koy def daal ñu xool lu rafet ñu ko def nañu xam ñu ko. dañu soutenir jigéen ñi daal. waaw mais jigéen ku ko soutenirul doo am lu baax de hmm. waaw kar jigéen ku ko soutenirul doo am lu baax loolu moom bul sonn sa bopp muy man muy keneen muy ma sàmba ma dem ku soutenirul jigéen ku taaralul jigéen. ku defarul jigéen ku bëggul jigéen ak bëggal ko lu baax non doom lu baax loolu moom lu sonn sa bopp yàlla ko kon suñu yaay ñun yàlla nañ fi yàgg ak suñu rax yi nañ gaa yi delloo seen xel bu baax ah ak soxna yi soxla yi ak soxla yi yépp sax nañu bàyyi gaa yi bàyyi seen xel bu baax ne jigéen daal kenn du moom yàlla defar na ko ba pare nañu bokk rek ànd ak ñoom. Balla bu am lu mu fàtte bëgg ko wax lan lay doon. waa li ma amoon li ma fàtte bu ko wax mooy di ñaanal ñëpp jàmm di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg eh, di gërëmaat rek sama école de lutte Balla di gërëm monsieur nduur bi nga xam ne mooy nekk Balla Gaye la waa ju bëri histoire noonu waaw ma ko monsieur Anne nekk suma xarit nag ah nekk suma xarit yàlla boole ñu di gërëm aussi tamit. Euh, suma benn gain Matar Diouf di gërëm waa France waa Angleterre waa Espagne waa New York waa 116 waa am moo Guèye sama xarit maa ngi koy bu baax Awa Cheikh ak maman Assou ak père Babou vraiment sama gars nekk fi ñoom Cheikh Fall ñoom Mamour ñoom Jabel yëpp sama yaay yi nekk foofu suma papa yi ñoom Boucher Boucher suma xarit la vraiment dañuy waxtaan ci sa beeg lu bëri bëri waa Boucher maa ngi koy sant bu baax ko gërëm ak ñëpp xam nga. di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di baalu ñëpp ax doo Sénégal yàlla na jàmm waaw yàlla na jàmm yàlla na jàmm te bi dafa doy nag ah violence bi dafa doy nag vraiment dafa doy. Balla rafet na tey nag Balla gis nga li ma sol nii sama dama am ay yoo xam ne dañ may ñëwal. waaw kii muslaay lañ koy wax nekk fii parcelle unité 12 yaa ngi dégg il faut xam naa nga dem fa mu ñawal la am naa keneen rim ka couture mu nga tuubaa Sandaga hélas bu jigéen mu ngi fii Nord Foire non bala foog nga dem fi ñu ñawal la Moussoulaye. <laughs> sponsor yi baax de. Ah, gis nga dañ may ñawal de. <laughs> waaw. Rim Ka Couture Touba Sandaga ak Moussoulaye par mu ah, ñëw fa mu ñëwal ma incha allah. waaw ah, Rim Ka mu nga Touba Sandaga troisième étage xaritu Samba Kara la. waaw Ka waaw Kara sax. <laughs> Nooré Kara eh tey la ma tey. Nooré maa def nag Samba ndeysaan waay ju baax la ku simple bu wàccoon nii ma gisee bu ne eh, mën na ko taxal wàccal day wàcc parce que dafa nit ki dafa nit waa nit ku ko yàgg xam tubaab waaw non mii sama waay la te jom dafa am dafa am jom la amul problème Rimka faa ma ñëw Samba mhm. naa ñëw ci Rimka mu ñëwal ma waaw <laughs> waaw bëggee <laughs> maa ngi lay nuyu baax mhm. di la sant di la gërëm te xam naa ne sa jëkkër ni ku baax la mhm. euh, taala moom vraiment waaw amatul ko yow doomu ndey Babacar. waaye mais kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax a baax waaw. parce que soxna yi duñ ci mën a ñàkk bokk sama soxna maa ngi koy nuyu teneng moom it dalay <laughs> teneng ah Balla wala du noonu. ah di ko sant di ko gërëm. ndax soxna yi moom. kenn amul seen fay. waaw dañuy taxaw bu baax. waaw dafa dafa leer daal. naan nit euh, soxna bi ma ko jàppale ci lu bari dafa am. Hmm. teneng moom loo ma koy waxal. kan ci sama soxna loo koy wax. li ma koy wax. loo mu mu mu mu góorgóorlu te li fi suñu yaay sëy ñoom duñ ko sëy liñ fi muñ ñoom duñ ko muñ waaye nag xamal ne sëy daal muy dëgg. te mu ne duma takk ñaar ndax dégg na liiru naan ma Balla moo lay may ñaareel Ami Sidi bi mu nga son ah nee na ma boo gisee bala Gaye de nee ko bu mayu ñu la ñu takkoo jabar tey su waxi noppi Ami Ami Sidi bi Balla nee ko ani Ami Sidi bi waxal moom. ah Ami yow Ami yow loo bëgg rek lañuy def amul benn problème. <laughs> ami si bi daal yow loo bëgg moom nañu def boo bëggee ñu ñu toog garaawul waaw <laughs> taala waaw moo a bégg ah gis nga numéro Mousla yaa ngi nii taala parce que tey gis nga moom ma jox yére jox ki nga xam ne nii mooy taala Ndiaye yére Balla Mouslaay Couture numéro yaa ngi nii taala jëlal 77 898 35 34 77 860 846 93 11 ñetteel numéro bi mooy 70 542 07 96 yaa ngi dégg Rim Ka Couture itam benn baal 17 632 642 non safrla 642 31 71 loolu mooy numéro Rim Ka Couture Rim Ka Couture numéro baa ngi de Touba Sandaga waaw borom ma kali max la